maam Khalifa maa ngi lay di maam maa ngi lay euh, fay di la dellu ziar bu baax a baax. ginnaaw bu ma la nuyoo moo gën a fas yéene baax dañu koy euh, dooree rek ak euh, njiital réew mi le président Bassirou Diomaye fay ginnaaw nag visite bi nga xam ne daal dina koy amal foofee ci diwaanu Touba ak ci Tivaouane dem seeti woon xalif généraux yi nga xam ne ñoo fi daal di ñoo fa daal di nekkee mu mel ni nag dina daal di wutali foofee nga xam ni moom mooy ci diwaanu Mauritanie foofee nag daal dinañ ko fay annoncé tey ci mercredi ji la fa daal di nar xew nag loolu yëpp nag en tout cas daañu ci ñëwaat euh, ci ay yaatal ñu waxit euh, ci leneen mu mooy euh, douane sénégalaise bi nga xam ne nag dafa daal di teg loxo ci ay billets yoo xam ne nag toll na ci juróom ci ay milliards ci suñu ay koppa mu mel nag foofee ca Tanaf la daal di amee ci gu Goudomp nekk nag ci région bu Kolda ñu waxit ci leneen moom mooy démarrage wala tàmbalib li nga xam ni moom mooy système de pointage bi nga xam ni personnel euh, bi nekkee fofé ci hôpital Albert Royer dan dal dinañ koy euh, dor ngir nak mëna a sàmmonteeg li nga xam ni moom waxtu ñi euh, liggéey docteur Issatal Diop lañ ci téwlu ci ay léral di informer personnel hôpital bi Albert Royer ni pointage du personnel bu hôpital bi commencé na cette semaine comme ni ko règlement intérieur bi waxé normalement le service des ressources humaines dafa war procéder au pointage du personnel Nous ku nek heure bi ngay dugg ci hôpital bi pour liggéey ici, ak heure bi ngay guen xamna ni nak euh, pour mois bi phase test est gën doon parce que une horaire de travail yi ben surtout que euh, l'hôpital day liggéey 24 heures sur 24 euh, donc day liggéey à feu continu heure yi ñuy wàcc ak heure yi ñuy dugg duñ doon benn mais nañ xam ci buntu hôpital bi heure bu ñu xëyee incha à partir de 7 heures ñiy pointé personnel ña nga fa bu ñu ñëwee yore seen carte daal di badge daal di dugg bu ñuy génn également parce que xam nañ horaire de travail yi bu ñu amul pause 16 heures la mais bu ñu amee pause 17 heures la 8 heures 17 heures donc à partir de 16 heures aussi dina am ñu taxaw ci buntu hôpital bi kuy génn nga badge nga daal di génn.

moom mooy ci càmm gi nag euh, amees nañu ko njàqare seen xel nag euh, mu mel ni daal di euh, nay dalandi wala mu desende dal ñi nga xam ne ñoo nekkee ca maison des éleveurs yu Sénégal ñooñu nag yëkkati nañ ci ay kàddu kenn ci ñoom di seen njiit di Ismaïla Sow ñu teew lu ko ci ay leeral dañoo jël regroupé ministère de l'élevage ak ministère de l'agriculture agriculture ak élevage yépp ay nit lañu ñoo xam ni dañoo moom seen bopp war cee mën a dund dundal ci seen njaboot ñaareel bi aussi ñu bañ nguur gi pour bu mu jaawale élevage européen ak élevage africain donc loolu moo tax ñooñ ñu gën a yëglu pour que ñoom ñu mën a ànd loolu jël ko kon mais aussi ñu diis ak ñun heureusement que nag ministre bi moom wax dëgg yàlla commencé nañu tàllal loxo commencé dalal suñu xel bi suñu cër nañu nu ko laaj parce que bari na ci réalité yo xam ni ñun ñoo xam daal Sénégal d'ici quelque temps danañu célébrer fête tabaski lii tax sénégalais yi aussi di mën am li ñu bëgg di fekk élevage pastoral bi parce que mo gëna a yomb moo gën a accessible ci ñoom Sénégal dafa commencé am problème foncier ñu waxit euh, ci commerçant yi nga xam ne ñoo nekkee ci Patte d'Oie Baldeuse mer ba futtu la ñu daal di def euh, jëmale ko ci li nga xamante ni moom mooy installation supermarché ba ñu fa daal di gis ndax jàpp nañu nag euh, loolee bokkul woon ci accord yi nga xam ni moom la ñu doon wala moom la ñu jubbooloon ak ki nga xam ni moom mooy promoteur ba ndax jàpp nañ ni loolee nag dafay daal di indi ay cooxe bu baax a baax ci seenub liggéey juma seen moom moo yore seenu kàddu ñu teewlu ko. dans les cahiers de charge ci colo clause yi ci contrat yi ci waxtaan yeeg fépp dafa ñu ne dama leen di tabaxal supermarché bu am deux étages defal leen banque ci eh, kii bi euh, coin bi ci entre ci de chaussée bi dina leen defal banque en mezzanine au premier et au deuxième banque non non promoteur bi promoteur parce qu'on travaille en parfaite collaboration avec le comité de gestion du marché le comité de gestion de la mairie et le promoteur Nous, avons ak mom ñuy construire ba muy paré. lépp ci waxtaan réunion les yépp loolu lañu waxtaané. fi wax mom lañuy donc mënul wax banque ba paré. Ñew duñu fa supermarché li xew marché bi marché bi doxul marché bi nit ñi xamuñu marché la ku marché la ku fi romb da nga école la wala wala wala euh, auberge la wala lan la wala wala la mu mu tëj ñu si biir kenn xamuñu mu ñoo bëgg a tijji koo xam ne moo ñu ëpp doole tijji ko si biti muy jaay petit prix ku ne xam na ne loolu jaar te xam na ne supermarché yi am léegi lépp la ñuy jaay ñu dara ñu dara yemuñu ci alimentation kese géej giir sax ñu ngi ko jaay lépp la ñuy jaay kon ça veut moom dañuy rey ba ñu dee ñun duñu liggéey ci dara num ñuy gàllankoore mooy ñun li ñuy jaay fi moom la kooku di jaay te ñun ñu ngi tëju xamuñu ñu ka ca biti nag moom te moo gën a jege gën a nekk ca mbedd ma ku romb gis ko fu mu nit toll seen ko moom moo nar a jaay ñun du ñu jaay loolu du yoon. nañ gis autorité yi ne ci dëkk bi dem nañ ci mairie ba déposé fa sunu lettre dem nañ ca euh, préfet. déposé fa sunu lettre dem nañ gouvernance déposé sunu lettre moom maire bi fi nekk bi fi nekkoon te ñu fal ko ministre recevoir nañu ba këram ne ñu mu ngi waxtaan ak waa ji waa ji dafa dem umra mu ngi waxtaan ak moom moom sax dina woo waa ji fi nekk di installé naka mu arrêté lii ba ñu réglé leneen ci xibaar muy waa INAPAS yi nga xam ne nag ñoom it ña nga yëglu di wax seen ay doléance ndax it la ñu daal di bëgg bokk na ci licence de pêche yi ñu xoolaat ko bu baax a baax gën ko càmbar waaye tamit euh, yeneen avantage yi nga xam ni war nañ ko mën a am ñoom it ñu daal di ci am bu baax a baax euh, ñenn ci ñoom yëkkati nañ ci kàddu ñu teewlu leen. waaw assise nationale des pêches moom ba mu waree am yàgg na ndax président bi fi jógee diggoon nañu conseil conseil de la pêche. boo xam ni ba fi ñuy wax ak ñëw nii loolu amul ba tax na nguur gi fi ñëw comme li ñuy wax rek wax dëgg yàlla am nañ si yaakaar ba tax na loolu tamit xam nga pêcheurs yi ñu ngi koy demandé. te loolu la ko waral mooy accord de pêche yi nga xam ni tey doon nañ ko signé si géeju Sénégal ba pare ñun nappkat yi ñu amoon lu ñu metti lool muy pavillon Sénégal bii nga xam ni yàgg nañ di demandé pour ñu def fi xam nga audit national boo xam ne pour càmbar ba tey yi nga xam ne tey nekkul si bokkul ci réew mi nu mën leen fi jëlee loolu nag dana bokk si li nga xam ni dana fi dakkal immigration clandestine tax na nag comme président bees na nu am mu ni xam nga day bale réew mi ba tax na bale boobu muy bale réew mi na si bale waale pes bi ba mu set wecc ba li bokkul si réew mi wax dëgg yàlla xam nga nu man ko fi jëlee ministère bu bees bii fi ñëw nag ñëpp am na si moom yaakaar parce que Sénégal yëpp nee nañ technicien de pes la comme ñu soxna Fatou Diouf comme ñun nag kuréel gi nga xam ne di INAPAS ku nekk xam na ni kuréel la goo xam ne tout le temps xam nga nu ngi bi nu ngi si mbedd mi ndax loolu képp koo xam ne tey nan ko ñëw salfaañi suñu métier rek dinañ taxaw jàmmaarloog yow dañ koy wax nag mu dal ak bisimilahi rahmaani rahim di dal ak jàmm. ministre bu bees bi tamit soxna Fatou Diouf ñu ngi ko tàllal loxo. jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund si suñu frontières yi fu mel ni Guinée Bissau tey mool yi nga xamante ne ñoo nekk côté Cap Skirring ñu ngi fay dund ay jafe-jafe yu metti kon ñi ngi ñaan mu xool ni nga xamante ni moom lay collaborer ak ministre de la pêche bi nga xamante ne moo nekk Guinée état ak état pour ñu jéem a xool naka la ñuy def ba dimbali suñu mool yi nga xamante ni euh, sénégalais yi dugg côté Bissau ak gine ko Conakry di fa am ay jafe-jafe. ñu wax ci liggéeykatu société nationale yu Dakar Dem Dikk yi nga xam ne nag lañu bëgg bokk na ci euh, ngir ñu mën leen a dugal. ci fonction publique waaye tamit euh, seen i ay bëgg-bëgg bokk na ci ñu boole liggéeykat yooyu nekkee ci dem dikk ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci teer bi ñu ngi ko xamle ci jano janoog taskatu xabaar ba nga xam ne ñu ngi ko doon amal la Boubacar Fall euh, di délégué ci personnel ba lii la yëkkati ci kàddu ñu teewlu ko. à nos jours bépp directeur bu fa nekk président de la république moo lay tàbb te à part Christian Salvi tubaab bi buñ ñu créé Dakar dem dikk ñoom ñëpp politique lu ñu doon def su fekkente ni gouvernement bi nga xamante ni moo toog tey jii nii gis nañu. lii doxal Dakar dem dikk mooy ki nga xamante ni ku def politique peut-être dina au delà même Dakar dem dikk mooy yeneen entreprise yi xëy na dina def appel à tey booy créer lu bees di nga recruter te bépp gouvernement bu fi nekk dafay dafay laajte maanaam ñu ñu jox ndaw ñi liggéey te boo recruter ndaw yi dina am liggéey te pourtant ñoom ñoo ngi wax ni que am nañu ay bis yu gaare dëgg la am na 300 et quelques bis mun ñu génne 150 ñu ngi génne 130 te war nañ génne bis yooyu yëpp mais Ousmane Sylla nguur gi nga xamane mo fi nekkoon pourtant tek nañ ko pression pour me recruter mais daf leen ni dès après élection ñi muy ñun muy ñeneen képp ku fi toog moo war a fixer modalité de recrutement yi nga xamante ñoo war a dugg Dakar dem donc tey jamono ji euh, mu mel ni nag dañuy wutali foofe ci diwaanu Thiès euh, nga xam ni nag lu tolloog euh, ñetti téeméer ci ay liggéeykat yoo xam ni ñu nga foofe ci entreprise SPA la ñuy daal di réclamer rek moom mooy seen ay payoor ndax it tok nañ lu tolloog at yo xamni ni jotuñu seen ay salex dam sambu mom mo ci nekkon seen euh, porte parole ñu tewlu ko ma ngi liggéey sinko sinko nak daa am lu lo xamni ne vraiment ñun dañ ko fi dañ ko fi dund mu metti trop bon sinko mi ngi def assainissement ak route ak lepp lay def ko an bi bu mag la bu yag la aussi parce que mo defaroon pian ngaay bi Thiès Thiès ngaay mo ko bon mi ngi mi ngi mi ngi ci biir Sénégal mi ngi bëgg bitim réew quoi même am na ñu nekk euh, Gambie am na ñu féete fii à Thiès am na ñu nekk euh, Kaolack am na ñu nekk Dakar bureau am na ñu nekk Yoro dañuy liggéey pendant des mois te fay ñu parce que waa Thiès ñu ngi gëj a fay ko depuis mois de février deux mille deux mille bii passé deux mille vingt trois ñun waa Yoro ñu ngi gëj a fay ko depuis mois d' avril. deux mille vingt trois. ba ba ñu ngi avril bon boo feebaree doo faju am nañu dem retraite ñoo xam bi ñu demee IPRES xool dañ ni versuñu leen dara. bon ñu ngi ko ne liggéey. bon ñun boobu honnêtement ñun waa Yoro Fall liggéey duñu parce que sànq bi taxaw parce que yor ay luwaasu jàmbur yor ay añu jàmbur fayuñu ko. dañuy lemu bon aussi suñu doom jàngatuñu. parce que parce que école yi xamuñu kii fay ñu bu weer dee bu fay dañuy dàq see doom. am na ñoo xam seen kër ngi ñu ngi tatas am na ñuy dee. am na ñu feebar ci àll ba dee ci affaire yu mel nii waaw dañoo daal ñu fay suñu xaalis te waxuñu mu ñuy jox ay avance nañu fay suñu xaalis lépp rek li ñu moom ñun li ñu moom nañu ko fay bon liggéeykat yi war na ma trois ans ëpp na trois ans waaw trois ans waxoon a téye bunt bi ñu ñu bu leen téye bunt bi parce que léegi daal ñun la ñun soit bon dañu woo ñu jàppale ñu leen jël loolu lañ soxla mhm. ñu ngi lancé na appel ci réew mi bees mën nañu réew mi bees na réew mu bees parce que lii yàgg na am ci yenn nguur yi mais lii lu yàgg la parce nekkul lu bees ku nekk sungu rek mosoo liggéey weer da fay ko at trois mois wetuñu ba même même ñu jeexal dem dem IPRES vérifié fekk ñu fa dërëm juróom-ñetti waxtu toftal fukki simili ak ñeent dañuy tàbbi ci xibaari bitim réew yi xibaar bitim réew Moussa Thiam lañ ceen dal Baye Moussa nuyu naa la maa ngi lay fay maam Khalifa ba jàmm nga fanaan waa alhamdulilah moo gën a fës ci xibaar bitim réew yi maam Khalifa ñu nuyoo mbokk yi ñuy seetaan xibaaru bitim réew yi dañ koy dooreek fee ca réewum Libi foofa nag gannaaw ba nga xamante ne nii eh, faatuk eh, Mohamed eh, Al Khadafi ma fa doonoon jiitum réew ak léegi réew ma nag cëppa coxoo ga mu ne woon waral jàppante ya nga xamante ne ma ngay am ci diggante nguur ga ak ñaa nga xamante ni dañoo fépp foofe fare foofee ca réew ma loolu nag waral nag ki nga xam ne mooy euh, professeur bàcc Bathily di doomu réewum Sénégal nag euh, di ndawal Nations Unies ba nga xam ne moo dem foofu ngir séqi li nga xamante ni mooy jéego ya nga xam ne moo ngi koy doxi ngir lépp lu mën a delloo si jàmm ak dal ak boolewaat askan wa ñu bennoo ba réew mu mën a ci siwaat ci nañ ko xamé won té modi ak dal ak développement loolu yi nag bokk na ci la nga xamanteni moy cadre ya nga xamni ne na ko yëkëti mom professeur Abdoulaye Bathily mi ndawu Nations Unies fofé nga xamni moy ci ca réewum libi ngir dox fa ay tanku jamm mam khalifa dañ koy toftal euh, réewum gëna fofu nak euh, guerre euh, de communication lañ fa ko ci digënté ña ba li nga xamanteni moy kër ga nga xamanteni moy yoré lepp lu aju ci walu électricité ba ak ñenn ci askan way ñaxtu way yit ak gouvernement ba nga xamanteni mi ngi indi ak léra la la nga xamanteni xamante ni moom la ñuy tuuma nag dañoo njott ni kat euh, coupure de courant ya nga xamante ni dafa toftaloo lool jamono jiñ toll nii la ko waral nag mooy ŋàbbin wu bon woo xamante ni nii kër ga nga xam ne mooy séddale courant ba foofee ca réewuma euh, Ghana ca Accra loolu yi nag doon na loo xamante ni moom la askan wa di ñaawlu waral euh, ñu indi ci ay leeral la xam ne nag mooy kër ga dafa woo lu toll ci quatre cent mille dollars yoo xamante nii ngir mën a joyantikuwaat suqali li nga xamante ni mooy jafe-jafe ya nga xam ne ca la nekk ba mën a dakkal lépp lu aju ci wàllu coupure yi nga xamante ne ni askan wa ñu ngi koy yëg jamono ji foofee ca réew ma bu ñu fa jógee maam xalifa dañuy wutali fale ca Grande-Bretagne foofa nag euh, parlement ba député yi dañoo voté validé largement li nga xam ne mooy loi anti tabaab bi nga xamante ni nii nag dañoo jot ni dafay indi ay jafe-jafe lool ci wàllu wér-gi-yaram la ñu xam ne nag ni ki euh, talaata ji ñu génn lañ dooroon boobi projet de loi ngir càmbar ko waaye mujj nañ ko adopté largement foofee ca parlement bu britannique nag la ñuy xam ne mooy loi anti tabac bi nga xamante ni nii le premier janvier ci atum 2009 lañ dooroon di ci sëgg di ci euh, tàmbalee jàngat waaye nag la ñu nemeeku mooy cancer yi nga xamante ni nii da koy jox doomu aadama yi ak jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram dem nañ ba ñu nemmeeku ko mu jégg dayoo lool moo tax fi mu toll nii voté nañ ko largement it ñoo xamante ni am na app bopp danañ ko publier ngir ni képp ku ko amut kat danañ saytu ba xam nan nga war a mën a def ba moytu li nga xam ne mooy cigarette ak daan ya nga xam ne dañ ko cay toftal la maam xalifa bu ñu fay jógee dañuy wutali fële nga xam ne mooy ci réewum France waaye nag Mayotte euh, di ab euh, gox bopp daanaka île la ñi nga xamante ne ni ñoo fa nekk nag dañuy faral di dalal ñi nga xam ne ay immigrants lañ yoo xam ne duñ dañuy illégal waaye it nekkin wa dañuy doon nekkin woo xamante ni dafay jéggi dayoo loolu nag waral nañ ñi nga xamante ni ñooy gouvernement bu France daal di euh, jël lu toll ci 1700 ay gendarmes policiers ak militaires ñu amal ab opération. Milano jëmee ko foofee nga xamante ni mooy ca diwaan bu Mayotte lool yi nag waral mu ña nga xam ne ñoo fa nekk ñi ngi koy ñaawlu ci léeg-léeg fàtte gu ñu leen di fàtte nii dañuy mel ni bokkuñu ci réewum France doon na loo xam ne naqari na leen ba léeg-léeg jàmmarloo ya ñuy amal ak takk der yi dafay jéggi dayoo opération boobu nag euh, ki nga xamante ni mooy euh, képp ki yore lépp lu aju ci wàllu sécurité publique euh, bu gouvernement bu France nag mi nga xam ne ni lañ ci juble rek mooy sécuriser ak indiwaat kaaraange ndax ñuy gis ni léeg dañuy bàyyi ci diwaan bu Mayotte dañuy sataxlu di dugg ci yeneen i diwaan ci biir France waaye jaarin ba dadul jaar yoon. loolu yi nag doon loo xam ne moo waral ñu amal boobu la opération de sécurisation boo xamante ni door nañ ko ni démb dañ koy ndar keppe fële nga xam ne maam xalifa mooy ca moyen foofu nag gannaaw ba nga xamante ni Iran euh, dafa amal ab cong jëme ko ci Israël waaye Hezbollah euh, tollanti ko ni ki démb ba am ñu mu euh, gaañ faagaagal ci ñi nga xam ne ñooy soldaaru israéliens yi li nga xamante ni nag mooy Israël dafa am ab riposte bopp jëme na ko ci kuréel gi nga xam ne mooy Hezbollah waral euh, waa Hezbollah di xamle ni kat kenn ci seen i commandant yi nag ñoom dañ koo fàtt ni ki démb euh, ci ab bombardement boo xamante ni Israël moo lancé ay euh, missiles yoo xam ni da doon am ab frappe aérienne boo xam ni da koo jëmale ci ñoom lool yi nag waral nañu ñàkk ci seen benn commandant de guerre boo xamante ni ni ñàkk na ci bakkanam loolu yi nag dëppoo ak ki nga xamante ni ni moo yore lépp lu aju ci wàllu communication ci gouvernement bu état Ibra mi nga xam ne nag ñoom noppi nañ ngir amal ab riposte jëmee ko ci réewum Iran gannaaw ba nga xamante ni amal na ay cong jëme ci ñoom maam xalifa lii de xabaaru bitim réew ma bàyyi nga wéy ci li des ci yi la jotaayu xabaar. Moussa Thiam euh, di ko jaajëfal pàcc gu mujj ci xibaar yi édito lay doon indi ànd ceeg Hadj Mansour Diop. ci Sénégal bugguñu mu def victime mais am na ñoo xam ni dañu exagérer te dañuy dépasser les bornes lu ñu gën a baral jéego yi mu gën a gaaw pour ñu trouver solution pour ñu régler boobu les situations ñenn ñi dañuy mbubboo ay coopérative d'habitat mel ni ko am sañ-sañ bay yegg ci di jaay suuf ba di ko waxaale mel ni lu ñuy tong-tong ñenn ñi di jaay doole ay nit ñu fekk ci seen suuf te naan day liggéey moo tax yenn ci ay promoteur yi ut ay ngemb ay nit di leen ngemb ñu nekk ci réseaux sociaux yi di saaga nit yi dañoo xamul li xew ki nga naan moo la jox suuf segam kooka moo feesul bëtu buñ ko waree recadrer ñu recadrer ko ci mu bàyyi suufu baykat yi sa boo nekkee ku juddoo faneen dem ci benn localité di intimider baykat yi te naan promoteur la te naan dama indaale sama xaalis wala dama leb ci banque yi kenn leb loowu la ni ngi bëgg a def ñu dëkk ci village ak seeni ay suuf du jàll benn yoon parce que sañ-sañ bi nga am ak xemmemteef gi nga am pour liggéey moom la ki nekk ci village bi xemmeem te sañ-sañ boobu la am moom itam pour liggéey sañ-sañ boobu la am pour am ay forêt ak àll bu muy def élevage ngeen ñëw ci kàddu yi tegul fenn teg ay deal ak ay maire di intimider waa village te naan leen yéen a ngi liggéey ci man bu dul woon yow itam ñu liggéey ndax danga leen a yàqal seen liggéey coola am ca njaman duñ ko mus a bàyyi bala Dramé même bu fekkee dafa am ñu ko ngemb askan wi itam am nañu leen ngemb te biir na ko ni

xel mënu koo nangu te du jàll benn yoon sàkkaa itam la am ci commune bu Nguéniène amul benn explication bu ngeen di jox kenn pour mu comprendre lu dul ngeen bàyyi baykat yi ak seen suuf parce que dañ bëgg dund comme yéen da bëgg investir mais dem leen fu kenn exploité wul te am na superfice boo xam ne état dong moo koy joxe suñu kilifa yi nag ak lu mën di am wax nañu baral jéego yi ci lijjanti coowal suuf yi balaa béy di wees mbuus parce que am na yoo xam ni mënut a jàll tey du jàll ëllëg intimidation bi ñuy def baykat yi moo xam ci côté way takk der moo xam ci soi-disant promoteur soi-disant promoteur bien sûr parce que léegi boo amee sax dix hectares bay fa ñu naan la promoteur agronome ak yomb xanaa kon ñun suñu bay yëpp ay promoteur agronome lañu ba ci ñun ñëpp sax dañuy caaxaan. jël suufu baykat yi jox ko ay këyit utal ko valeur ëllëg ñu doon mu doon seen moomeel ngir ñu sàkkal ko pexe ni mu leen neexee bu ngeen jotee suuf ci kër famille diine famille diine boobu nu mu def ba jot ci suuf sax dafa amoon xemmem teefu di ko bay bàyyi ko na ko delloo seeni ay borom loolu moo jaatu mais denc jox ñeneen mu mujj nekk benn outil de business au détriment de population loolu xel mënu ko nangu coowal suuf li am ca njamaan coowal suuf li am fii ci suun ak dëkk yu ko bu ci kilifa yi waxul mun na indi musiba ak mbetteel ndax fàttewuñu coowal suuf la amoon ca wàlloo ci jamonoy Abdoulaye am nañu yaakaar nag ci ni Bassirou Diomaye Faye dana gaaw lijjanti li am ca njamaan li am ca Malicounda benn nit bu jógee Dakar ñëw indaale ay àndandoowam intimidé xupp napp waa dëkk ba te naan leen promoteur la te naan du sa dellu gannaaw waxu caaxal la ak kay dellu gannaaw ndax askan woowu donte ay kaw-kaw lañ du ñu nangu mukk ñu fekk le ci seen suuf soppi leen ñu wala kana boobu du jàll fi la ñuy xibaar yi juróom-ñetti waxtu yi dañuy delloo lenge yi mami ngeen mu wëyal seen émission ba jàmm ngeen fanaanee mami ginnaaw ba ma la nuyuwaatee kàddu gaa ngi noonu